Et on se retrouve, nous sommes euh, samedi, mesdames et messieurs, très heureux de vous retrouver euh, pour votre magazine, c'est-à-dire, c'est-à-dire parce qu'il nous faut repasser en boucle l'actualité de la semaine, revenir sur ce qui vous intéresse, non pas ce qui nous intéresse parce que nous ne sommes rien sans vous. Tous les samedis, nous sommes avec des invités spécialistes de certaines questions pour vous édifier, pour nous aider à mieux comprendre ce qui se passe au Sénégal et dans le monde. Je voudrais d'ici remercier tous ceux qui nous ont suivis ces dernières 48 heures de l'inauguration de la mosquée Massalikul Jinan, joyau architectural exceptionnel, euh, victoire de l'islam, victoire de Cheikh Ahmadou Bamba et surtout ce bouquet final euh, que nous ont offert les présidents Wade et Macky Sall hier, une fois ouvre une page nouvelle dans l'histoire de la démocratie sénégalaise euh, donc euh, ni ñu koy di defee chaque samedi ñu dellu soit ak yéen di remercier ñi nga xam ne ñuy suivre tout le temps sur les réseaux sociaux euh, je pense à cette dame Fatou Ndaw euh, qui nous appelle qui réagit tout le temps par rapport à ce que nous faisons à ce doyen Abdoulaye Sy qui prie beaucoup qui me dit j'adore euh, euh ta compagne du samedi madame Fabienne et il préfère parler de Mame Diarra et avant de commencer un mot à l'endroit du contingent sénégalais de la MINUSCA là-bas en Centrafrique, euh, ce contingent qui a perdu trois de ses hommes hier matin suite à un crash euh, d'hélicoptère. Euh, le gendarme adjudant chef Keita et ses euh, camarades, donc nous vous souhaitons euh, euh, bon courage et surtout nos condoléances suite à la disparition de ces trois gendarmes sénégalais du côté de la Centrafrique. elle est là, elle est bien là. soxna Fabienne vous allez bien. alhamdulillah Ben maa ngi lay nuyu di la sargal di sargal euh, suñu gan bi nga xamante ni moo ñu fekk si tey ci euh, plateau bi di nuyu euh, téléspectateur bu 2STV. mais particulièrement suñu waajur yi nga xamante ne du ñu kii di ñu ñaanal ba pare mu nekk lu particulier parce que tàmm nañu di def euh, kii mais tey dafa particulier ndax li xewoon démb ak yooyu hmm. donc c'est la euh, c'est la victoire de l'islam c'est la victoire du peuple sénégalais ci seen maturité ak euh, li ñu nammee woon aussi gis loolu ndax boo xoolee fan yi tension yi fi amoon yëpp non seulement Euh, yàlla daf ñu may ñu ñu ñu am lii pour euh, xol yi dellu siwaat ñun ñëpp ñu nekk benn euh, donc defe naa démocratie wu Sénégal moom moo si moo si gën a grandir moo si bénéficier wu daal donc vraiment Sénégal ñu ngi ñaan mu dem si kanam ba pare xalaat ne dinañ fi def émission bu neex boo xam ne tey dama changé format bi ah. ndax samay invité alors ce, ce, invité c'est Euh, c'est un homme, je lui disais avant ñuy dugg ci émission bi que hmm. euh, je sais pas comment il fait pour encaisser endosser euh, tous les coups qu'on lui donne tous les jours euh, je l'ai connu jeune journaliste euh, il est resté le même euh, droit dans ses bottes fort dans ses convictions lu mu gëm lay wax lu mu gëmul lu mu noonu c'est pas parce qu'il est communicant parce qu'en communication parfois nga wax loo xam ne du sa waxu bopp. parce que da ngay porter parfois benn parole parce que da ngay défendre une cause euh, mais il a un franc parler qu'on aime. Euh, soit da nga koy bëgg soit nga ni je ne pas avec lui mais ce qu'il dit au moins lu mu gëm la donc le ministre Seydou Gueye avec beaucoup de plaisir nous recevons donc euh, sur ce plateau de c'est-à-dire euh, juste un mot pour saluer les téléspectateurs euh, sénégalais de la diaspora qui vous regardent jërëjëf benn jërëjëf soxna Fabienne di sant yàlla ci teew bi ñu fi teew ndaxte teew bi li ko indi yenn woote ñu wuy si leen parce que loolu mooy seen role ñu nit loolu mooy sunu devoir soo leen ñu ooyee dañu war a góorgóorlu ñëw teew waxtaan ak yéen euh, ndax sénégalais yi nga xam ne ñoo ñuy déglu euh, di leen di nuyu aussi leen di nuyu di leen euh, sargal di leen ndokkeel aussi parce que xew-xew bi nga ubbee Sénégal la xewee ay sénégalais ñoo ko def mais bëggoon naa bala may dugg ci waxtaan wi euh, mais ma recueillir avec beaucoup d'émotion ci sunu mbokk yi ñu ñàkk te ñu demoon euh, liggéey ngir jàmm nekk ci réew yooyu parce que lu dul jàmm rek jàmm moo ko gën te am na loo xam ni bokk nañ ci màndarga Sénégal muy ay doomi Sénégal dañ leen ittewoo fépp foo xam ne am na ay lëj-lëj ñu ñëw teew fa indi seen xam-xam indi seen compétence seen engagement euh, loolu tax na ba Sénégal bokk na ci dëkk yi gën a yóbbu ay nit ci contingent wu Nations Unies yi dans le cadre du maintien de la paix et foog naa loolu taarix buñ fi fekk la yokk ko te loolu aussi ndam la ci suñu armee parce que ràññee nañ leen donc Sénégal dafay ràññeeku image bu rafet la am nañ góorgóorlu sàmm image boobu. ñu nuyu euh, le contingent sénégalais de la MINUSMA au Mali la force de stabilisation euh, avec le colonel euh, Djimbi de la gendarmerie mais également le général Ndiaye bi nekk foofu donc toute l'équipe de la MINUSMA en tout cas le contingent sénégalais ñu ngi leen di nuyu ñoom aussi parce que gis nañu dans le nord du Mali c'est parfois extrêmement difficile alors monsieur le ministre wax nañ ko léegi léegi. le président Abdoulaye Wade, le président Macky Sall, dans une voiture, ensemble, l'un euh, prenant la main de l'autre. Est-ce que image boobu il y a heures bu ñu la waxoon ni mën na nekk di nga ko gëm. Euh, boo ma ko laajoon dama la naan ni toujours mën na ne ndaxte li xew ci sunu borom la tukkee souvent dañ koy fàtte parce que mbir yi am. sunu borom lay neex mu am parce que am na nu ñu yare loo xam ne dañ koy jàng mu ñuy gide ci àddina nee nañu sunu borom xamul li war li jot rek la xam donc démb lay door a jot mu am am nag tukkee ci sunu borom am ci bërëb am solo boo xam ne ni ko Fabien waxee léegi euh, victoire wu l'islam la mais day wane aussi euh, ferveur doole fois fi mu mën a yóbbu nit parce que damay wax nii ci bërëb bi mu xewee mooy sur le chemin du paradis noonu la Masalikul Jinaan noonu lañ koy tekkee mu am ci teewaayu sénégalais yëpp mu nekkoon luñ doon xaar parce que ñëpp koy sakku mais démbalay door a jot amin nag amin wu rafet parce que lu jóge suñu borom rek dafay rafet mu am ci teewaayu sëñ Muntaxa koy ñaanal yàlla yàggal ko fi te mu ànd ak wér euh, ci teewaayu sunu kilifa Malick Sy Alaaji Malick Sy ne mooy porte parole euh, confrérie Tidiane di ko ñaanal it moom it yàlla yàggal ko fi te mu ànd ak wér nekk ci teewaayu sénégalais yëpp mu nekk loo xam ni boo ko bëggee xool ci wàllu politique da ngay juum. mais da koy xool ci wàllu li nga xam ni mooy sunu culture sunu culture jéggalante ak ballonte ak moo ci am ba bés yi ëpp solo ci ñun ci sunu diine loolu mooy liñ ci gën a santaane mu am ci diggante koo xam ni yoroon na fi réew mi muy président Abdoulaye Wade ak loo ko mun a wax ci adversité politique am na lu mu fi def bàyyi ko fi te du dañ digganteem ak yor réew mi tey am lu mu fi def di ñaan yàlla weesu ko ñoom ñaar ñëpp ñu nekk ñu yàlla teral ba pare te la leen tax a yëngatu démb président bu lay Wade ba tey président Macky Sall ba tey mooy li jëriñ sénégale yi sénégalais yi sàkku woon gis image boobu gis diggante boobu président yëkkati ci kaddu daal di firi li nga xam ni moo tax ñu daje mooy ndigal li jóge mais yéene bi ñaar nit ñi am parce que seen diggante ñëpp xam nañ ko euh, diggante bàyyi la ak doom parce que ñun ñëpp gannaaw critique yi ñuy def ci wàllu politique président Abdoulaye Wade sunu bàyyi la ñun ñëpp te fii ci réew mi rawatina nag ñun lébu yi dañu yar nañu na doom topp baay rakk topp mag comme ça kër gi am jàmm donc dañu yaakaar ni loolu ay jéego yu am solo la pour jàmm ji gën a yaatu rawatina nag ci cadre bi nga xam ni dugg nañ ci modalité pour gën a yokk jàmm ji muy la dialogue. donc euh, euh, ci wàllu diine ci wàllu taarixu Sénégal ci wàllu valeur culturelle Sénégal loolu mën nañ ko euh, comprendre ndigal la kenn ku nekk su ñoom jëfe ko mais léegi ci wàllu politique dañuy wéyal renforcer retrouvaille bi wala kenn ku nekk da ngay continuer nekk si li nga nekk. non foog naa ne bu ñu déggee li président Macky Sall wax nañu gis yoon bi parce que gannaaw li nga xam ne am na ñëpp sant ci yàlla dafa yëkkati kàddu ne mi ngi woo président Macky Abdoulaye Wade pour ñu gën a lëkkaloo ànd defar Sénégal euh, beneen bi mooy mi ngi koy woo ci contexte bi ñu nekk muy contexte su dialogue te may fàttali ba muy jëkk woote ci dialogue bi génnewu ci woon président Abdoulaye Wade parce que daf ko woo woo président Abdou Diouf ba ni naan lu tax mu leen di wax yooyu mais loolu mooy cëram daf leen oo pour ñu jëm ci dialogue bi dialogue bi lenn rek moo nekk au fond lan moo am njëriñ pour sénégalais yi ci lan la ñu mën a déggoo ba nga xam ne suñu ay werante dina wàññeeku lan lañu war a gis mu nekk yoon ñu teg ci tànk dégloonte seet li gën tànn ko def ko pour Sénégal parce que damay fàttali ni it Euh, président Macky Sall bi nu koy fal ci 58 pour cent la nu ko fale donc pal yaatu na pour nga mën ko nat da xool li nekk ci digganteem ak ci topp xam ni pal yaatu na ñu fal ko nag ci proposition bu leer nee na bëgg naa def lii ci jeune bi bëgg naa def lii ci jigéen ñi muy PSE bëgg naa def lii ci reforestation bëgg naa def lii euh, ci wàllu industrialisation société numérique zéro déchet zéro bidonville donc am loo xam ni junj na ko sénégalais yi gis li muy tekki mu jaral mu jaral leen ñu yëkkati seen xob jox ko ñuy wàññi xob yi mu ëppale donc bu oowee dafa bëgg liggéey bi gën a yaatu parce que programme yi li ci ëpp dafa laaj mobilisation sociale parce que tey mënoo set setal Sénégal te nit ñi mënoo dajale mënoon damay defar ndaw yi te dajale lool donc dialogue bi aussi dafa nekk soubassement wu mise en œuvre bu gën a efficace bu inclusif parce que la mu tàmbalee ak fa muy dal mooy le Sénégal de tous le Sénégal pour tous et foog naa ni Sénégal de tous et Sénégal pour tous boobu président Abdoulaye Wade daf ci bokk ndax daf ci en place. Sénégal pour tous euh, Fabienne Just euh, Sénégal de tous démb biir Massalikul naan bi ñu génnee ñoom ñaar di dem euh, ñu bari ñu doon waxtaan dañ ñu que ni mbir mi président Macky Sall moo ko téye mën na ko yombal yombalal boppam mandat bi. benn loi d'amnistie Karim Wade dellu si Khalifa Sall génn si kaso bi ñu am jàmm liggéey pour suñu réew jëmale 2024 euh, est-ce que c'est à écarter euh, c'est c'est une possibilité une éventualité une loi d'amnistie pour que xalifa Sall mën a génn si kaso bi delluwaat ci liggéeyam euh, kii di Karim Wade dellusiwaat Sénégal jëlaat partiwam ñu dérouler àndandoo symbiose pour le bien du Sénégal c'est possible. non man côté boobu du ma ci xus lu bare parce que dama jàpp ni ni ñuy waxee ci mbir mi. dafa am lu ciy manqué li ciy manqué mooy dañuy wax rek fa war a dem di fàtte li nga xam ni moom mooy jëf ji fi nit ñi def mm-hmm. parce que kenn tooñul kenn du diggante Macky Sall président Macky Sall ak diw nu loolu de li leen boolee mooy li nekk ci réew mi ñëpp bokk ko te foog naa ni li nekk ci réew mi ñëpp bokk ko sañ-sañ bi warul nekk sañ-sañ individuel même bu fekkente ni président de la république am na lu ñu ko may ci dayoo ak pouvoir bu ëpp bi nga xam ne Fabienne am na ko wala yow nga am ko man ma am ko. Mhm. donc suñu buggee waxtaan wi leer dañuy bañ a fàtte yooyu. Mhm. te foog naa ni bu fekkente ne amuñu dara lu ñuy toftal ci lu rafet li am démb leneen luñ ci dugal da koy xajamal. parce que jàpp naa ni fu jàmm am. Mhm. Euh, leneen luñ ci wax te renforcé wul loolu. ñu ngi xaw a manqueel jàmm jooju. Euh, monsieur de ministre maa ngi lay sargalaat encore di kontaan li nga ñëwee parce que mun sax euh, demoon na benn benn moment sax xalaatoon nañu doo mën a ñëw parce que temps yi li ñuy jàkkoonteel dafa compliqué dañuy invité ay nit du ñu ñëw yow nekk euh, nga jóge États-Unis def. périple bi ak président de la république euh, ñu doon xalaat sax ne à la dernière minute euh, di ñu ne sax doo mën a ñëw mais nga ñëw ak décalage horaire kuy tukki xam ne ni mu toll nga ñëw toog nii di wax ak ñun ñu dañ koy rafetlu parce que ñun lii lañu ñu la te euh, mais kiiwaat encore ci fois bi nga xamante ni moom la benn tàmbale di wax ci affaire wu fois ak yooyu ma koy gis si yow parce que on sait que fu mu nekk li nga xamante ne moo am démb bu fekkee ne dañ si bëgg a dugal tuuti ci politique rek du mën a sotti bu boobaa ce sera de la politique euh, politicienne comme ni ñu yàggee ki te dina am tamit li yàqu te euh, euh, le président Macky Sall dina am lu mu yàq ci politique am parce que il sera en contradiction avec sa propre personne parce que moom ak le président Ablaye Wade je pense que suñu tasee ñoom ñaar war ñu mën a tase parce que lu rafet lu kii mais politique aussi waru ko wala wala nekk tamit un chantage boo xamante ne dañ koy kii sur le président Macky Sall parce que tamit la loi c'est la loi léegi nag ma bëgg loo poser question bu fondamentale mooy yow xam nañu ne Macky Sall à un certain moment demoon nga pour un mois ñu ko doon décrier fii parce que dañu gisoon ne euh, sa taxawaay bi nga amoon y avait un vide ñu tudd ko fi yàlla def nga dellu siwaat yow ak Latif Coulibaly ma bëgg a xam lan moo leen lan seen pa lan moo leen différencier ci li nga xamante ne euh, moom moom ngeen di def au niveau de de la communication au niveau du palais. jërëjëf mais ñëw bi ma ñëw lay jëkk euh, wax mm-hmm. tuuti rek pour nit ñi man du ma daw liggéey. li mm-hmm. sama liggéey la bu ñu ma nee kaay liggéey damay ñëw liggéey donc duma ma dawkatu liggéey donc lu mu metti metti euh, daf ñu war. parce que sénégalais yi ñoo ñu dénk donc heure bu ñu soxlaa rek war nañu mën disponible ci format yi nga xam ne moom lañu am pour wax ak ñoom mooy fekk leen ci seen ay gox seen ay kër parce que am na loo xam ne bu xewee sama commune biir Médina euh, lu ma sonn sonn dinaa jóg ñëw teew donc boo leen ma ooyee fii si euh, importance boobu laa ko war a jox euh, beneen bi mooy li nga laaj ci wàllu communication jàpp ma ni sax amoon na vide hmm. parce que mënuñu jël lu toll ni communication ak acteurs yi ni ñu bare ne benn nit wala ñaari nit rek bu ñu fi nekkatul dara doxul loolu gis-gis la nit ñaa ngi communiquer nit ñaa ngi góorgóorlu day nekk ay période yoo xam ne da ngay am ay cycle da ngay jékki am cycle yu xaw a difficile yu xaw a difficile euh, yeewu suba nekkaat ci cycle yu xaw a yu gën a yemb tuuti mais li am solo mooy communication bu fekkee ne amul vid ci yow li nga doon def lu tax ñu woowaat la. mais xëy na président jàpp na ni. fii laa ko ëppale njëriñ non amul vide amul vide ah, non amul vide parce que ay nit a nekkoon ci poste yi parce que ñëw ma rek mu nekk lu bees ñu ne ñëpp na dafa am koo xam ne nekkoon na fa def li muy def ba app bi jot mu dem man ma ñëw nam fa fekke woon keneen jël ko man it noonu la keneen di ñëwee jëlaat post bi ma continuer dem ci leneen bu fekkente ni yàlla lool la dogal wala wala yàlla kii fii la appam di yem hmm. ma wuy ko donc mbir yi mi ngi ci loxo sunu borom dëgg la mooy foi bi ma doon wax sax kenn waru ko fàtte euh, bu doon rek nit mooy jox boppam kenn du ñàkk hmm. loolu dama ko gëm hmm. te lii ñuy dox nii mais bu ko yàlla tuddee moom moo tax souvent il faut ko ñu ànd ak sérénité bari na lu ñuy yëkkati suñu baaraam naan man la maa war a am lii maa war a am lii non lu yàlla dogalul doo ko am ba pare nag ma bokk ci famille boo xam ni culture boo xam ni muy lébu ñun tàmm ñu yëkkati suñu loxo dañuy toog bañ joxoñ ñu door a jël noonu la ñu yore. ñu ngi nuyu lëg daaw. waaw sama maam waaw bu la neexee dañ may laa laa man. <laughs> alors donc li nga xam ne moo nekk ci schéma bi. Uh-huh. Euh, ci tegtal président joxe ñaari cër la. Uh-huh. Euh, le ministre Abdou Latif Coulibaly moo yor kàddu gi moo tax sax man dama war néewal li may génn di wax waaye souvent bu may wax ci cëru porte-parole alliance pour la république boobu dina confortable mais def différence bi ak cër bi ngeen ñu jox bi ngeen ñuy ooyee du yomb mm-hmm. mais li nga xam ne mooy man sama wàll mooy organiser communication bi gérer ko fexe ba ñëpp di wax fexe ba mbiri jaar yoon ba mu cohérent ba ñu am une intelligence de communication renforcée parce que mi ngi fi ñu seet maintenant naka la ñuy wuyoo sénégalais yi ci ñaari demande yi ñu am demande bi njëkk bi mooy sénégalais yi dañuy soxla information te gis ngeen ni il y deux ans président de la république jël na dogal ñu créer benn bureau bu tudd le bureau de l' information gouvernementale Dout Sarnia ancien soleil APS jiite ko ñu def liggéey boo xam ni ñi xam mbir mi rafetlu nañ ko parce que leer na sell na am na xam-xam beneen bi nag boo wéyee information dafa am li ñuy wax communication maanaam yow naka ngay fexe ba information bi lu mu compliqué compliqué ci dégg nga faram fàcce ko ubbi ko ba sénégalais bu nekk mën a xam lan la ban sens la jëm ak lu muy tekki ak ban incidence la am ci li ñuy def ak ban njëriñ lay am mm-hmm. kooku yéen ñi nga xam ni vous êtes des communicants xam ngeen ni mooy li ñuy wax un peu la dimension spéculative de mm-hmm. la communication donc loolu mooy tax ñuy werante normalement werante bi gën du werante ndax information bi wér na werante bi ñu war a am mooy man fa ma féete ak na ma gisee lan lay tekki ci man mais waruñu werante ci information parce que dafa am loo xam ni mënul bokk ci sunu espace te tey jii ñu ngi koy gis Euh, di jiiñante du dëgg ay kàcc la loolu du politique mooy tey jii lii fi nekk di information wér na mais yow Omar naka nga ko déggee man Seydou naka laa ko déggee ndax fa ma toll mën naa ko gisee parce que man économiste la mën naa ko gisee nii parce que yow juriste nga donc loolu mooy indi nuance yi mais waruñu discuter authenticité wu information bi te foog naa ni ci jamono yi passé li ñu gën a sonal mooy werante yu amul njëriñ werante yi amul njëriñ mooy warante yoo xam ni ay jiiñaate la ay tuuma la ngay dox di teggi tuuma dox di teggi tuuma doxalul réew. réew monsieur le président euh, pourquoi ngeen di bàyyi ba jaan bi romb ngeen di door ca watat ba souvent soit tuuma bi. day ñëw ngeen bëgg réagir pourquoi du ngeen joxe information bi balay euh, keneen di jóge fële ci beneen wàll ba ñëw dut si baaraam parce que tey bokk na si li gën a metti wala boog li gën a euh, nëxal xelu Sénégalais yi mooy l'état des finances du Sénégal est-ce que nguur gi tey am na koppar yu doy pour mën a politique am ni mu ko bëggee wala dafay colmater à gauche à droite ba tax euh, au niveau de la douane au niveau du port ñu ni léegi nañu rendre les mesures beaucoup plus dures ba nga xam ni commerçant yi nañu fay ni ñu war a fayee kii les taxes bu ñu demee ci beneen wàll bi aussi képp ko war a fay impôt naka fay à date échue bu ko defee nguur gi mën a am de recettes qui lui permettent de vivre côté boobu ce serait bien quand même que ñu ñu wax sénégalais yi est-ce que dañu nekk dans une situation de faillite ou d'ajustement structurel ki ne dit pas son nom wala euh, yéen yéen ak yéen la neex ngeen defee ni ngeen defee ni dañuy wàññi le train de vie dispendieux de l'État alo première idée bi ñuy gën a leeral État c'est le seul agent économique qui ne peut pas parce que État buy présenter budget da koy présenter mu équilibré en dépenses et recettes donc kooku wax la rek pour xumbal économistes yi xam nañu baax li ñuy wax ñaareel bi euh, boo nee tey jii état bi dafa jël mesure ci douane bi jël mesure ci impôts yi déggoo fu ñu ne dañuy yokk tarifu douane yi wala yokk impôts yi dañ leen dañ leen gën a rigoure ci li ñuy def. xam nga lu tax ñu appliquer li am parce que loolu mooy loi bi mais parce que budget wu Sénégal recettes yooyu ñoo koy defar. Sénégal amul pétrole boo xam ni commencé na génne xaalis amul gaz bu génne xaalis amul leneen budget bu ñu mos tëgg rek ñu ngi ko tëgg ci li douane bi indi ak li impôt bi di joxe ñu gis nag ni am na ay niche yu bare bare bare bare bare yoo xam ne bu ñu appliquer rigoureusement loi bi xëy na li ñuy soxla mën nañ ko am parce que ñii fay impo barewul gis ngeen communication wu impôt pour la citoyenneté fiscale. pour nit ñi gën a fay impôt bañ a nëbbatu. gis ngeen sa liñ ci indi ci wàllu foncier pour nit ñi bañ a njuj njaaj ji jaar fii ñu ne la léegi boo demee fekkee da nga yor kër di ko loué sa impôt ci kër gi benn weeru loyer lay doon comme ça nga feex kooku foog naa ni mesure la yoo xam ni sénégalais yi buñ ko comprendre bu baax jóg fay l'impôt dina yomb. maintenant ci li ngay wax ci tension trésorerie non. parce que bu fekkente ni jàpp nga ni budget bi ñu jàpp ñetti junni la ci ay milliards ak du topp yu war a mat ñeenti junni ci ay milliards fi nu koy doxalee nii ba fi ñu toll nii la nga xam ni exécuté nañ ko weesu na ñaari junni ak juróom benni téeméer ci ay milliards boo ko nattee ci wàllu bor Sénégal fi mu toll la mu am ci stogu det di ko fay mu ngi toll ci 54 pour cent te app bi limite bi 70 lañ ko teg maintenant boo dellusee ci li mesure yiñ fi jël te ñu tàmbalee ko ci téléphone da nga naan oui président Macky li mu def noonu la parce que ci fàttali du tey lañ ko commencé def nañ ko démb. monsieur le ministre. waaw yow su ma la waxee bàyyi fii benn dina dinañu wax ba ñu parce que da nga ay ci. <laughs> non non euh, man li ma leen di li ma euh, li ma bëggoon xam rek mooy. ñaari question euh, ci configuration avec la nouvelle configuration bi am temps yi si benn bokk yaakaar euh, kan la ñu war a joxaat encore cellule de communication bi. Mhm. Euh, muy benn. muy deux deuxième question bi mooy yéen da ngeen bëgg ay slogan ay kii fii lii fële. le Sénégal pour tous le Sénégal pour lii PUDC patati mais man benn. man depuis bi man. Euh, loolu ma xaw a jaaxal xam nga man damay wax toujours que man je préfère le terrain que nekk ci tribune mais Sénégalais yi dañu sonn benn man yi Macky Sall la génnee yëpp monsieur le ministre damay lekki forox du xam nga forox caay dama koy lekki di lekki bant yi ñuy jaay fii donc Sénégalais yi seen slogan yi ok c'est bien beau et tout ça ak yooyu mais Sénégalais yi am na yoo xam ne ni gisuñu seen bopp ils ne mangent pas à leur faim donc euh, euh, dëgg la boo leen di communiquer par exemple dem jam ñaajo jël seen oto yu bakkane yooyu ah, dem yaa ngi dégg ñu gis leen ngeen wax foofu mu jeex communication bi nga xamante ne c'est en wolof mooy la suñu làkk bi ñuy làkk noonu du am sax euh, pour que sénégalais bi xam fu mu jëm sénégalais bi bu gisee légumes yi di cher mu gis loyer yi nga xamante ne defoon ngeen fi benn kii bu mag boo xamante ne loyer yaa ngi gën a yokku euh, euh, euh, amul norme ci pays yi boo demee dans certains euh, certains trucs de de Dakar boo demee Almadies coca bi li mu fay jar ak kii yi du benn. j'ai l'impression que Macky Sall aussi le président Macky dafa xaw a yéex jël kii yi nii daf ko daf ko yéex a jël parce que mënoo toog fi sept ans ngay fay jabaru ambassadeur yi cinq cent mille Euh, utal fii euh, député yi defe naa ay ku nekk ay ñaari oto ak ñetti oto changé leen seen oto def ay yëf yu bëri xaaral non bari na parce que xam naa ne di ma bëgg a wër ba doo tontu si li may nii waaw donc euh, voilà donc pourquoi attendre benn jusqu'à ba sept ans yi passé ba mu toog cinq ans xam ne mi ngi toog tranquille amul benn enjeu mu doog a kii yooyu suñ la dégloo dafay mel ni mosuñu def dara kan yow. yéen mosu leen def dara defuñu waa waaw mais def ngeen mais am na lu des lu bari. non kuy dee bàyyi fi mbébét di nga def mais kuy génn àddina di nga fi bàyyi mbébét di nga am toujours yéene boo xam ne yeggul première chose la deuxième li nga xam ne am na importance mooy dafa am yu ñu war a jubbanti ci perception bi euh, benn bi mooy dama doon wax ci train ville d'État di fàttali ni laata sax ñuy ñëwaat ci téléphone bi. am na lu ñu tàmbali woon parce que bi ñu fi egg si li ñu fu fekk ci facture téléphonique c'est vingt milliards. facture facture téléphonique bu état bi sur l'année c'est vingt milliards. première mesure ñu jël mooy def ay gescompte mbir mi wàcc ba onze milliards yeewu yéegaat tuuti mais boo réfléchir bu baax tey jii ak révolution bi am ci wàllu téléphone. pratiquement am na ñoo xam ne léegi dañuy téléphoné te dootuñu jënd crédit parce que pass la ñuy am nekk ci whatsapp mu jox leen rayon de communication bu yaatu mais lu tax état bi du profiter ci nouvelle technologie yooyu ci avancé yooyu pour rationaliser ñu def ko ci benn weer observé muy waa mais waa dut bi passé hmm. avant dogal bi génn ñu expérimenté gis mais ci mois bi yëpp cent vingt millions la facture état bi di dikkee xaw ma 160 millions boo ko multiplier par 10 1 milliard la donc nga diir loo xam ni fa nga daan fay 11 milliards léegi mën nga def 1 milliard mais 10 milliards yooyu nga ciy économiser tey jii boo ko jëlee yóbbu ko ci financement wu DER xam ni c'est 30 milliards par année nga yokk ci 10 milliards muy 40 li ngay touché ci ay jeunes dafay bari parce que ci 30 yi DER liggéeyee rek. DER ubbi na ci lu war a mat deux cent et quelques mille ci financement yi gis ngeen temps yëpp ñu ngi wër commencé di def seen recouvrement ak jafe-jafe yi donc loolu mooy justifier ñu jël efficacité de la dépense publique pour optimiser pour am ay marge de manœuvre yu gën a yokku parce que na nga wax dafa nekk dëgg problème yi dañu bari ñaareel bi boo jëlee ci wàllu logement ak baisse loyer yi état bi li moo def war def na ko li ci des mais ñun suñu jikko la ñun sénégalais yi il faut ñu xool ni ñuy defee parce que ñun ñooy digaale ji loyer doo ko digaale président doo ko digaale ak ministre benn man ngay euh, seqal bëgg jël këram mu ne la lii laa ci investir du ma ci du ma ko joxe lu néew lu weesu lii wala lu gën a néew lii. mu nekk suñu diggante yow nga am pression parce que da nga soxla foo dëkk moom mu yor doole mel ni ku la jaay doole mais nga nangu parce que dafa nekk farata. comme dañu bëgg nit ñëpp nekk ci jàmm ñu ne solution bi du yem foofu kooku étape la pour mu xaw a tane la ñuy diir mooy tey ji sénégalais bu bëgg di nga mën a am kër dans le cadre du logement social ñu expérimenter lu mel ni ñaajo dëgg la nit ñaa ngi jënd nañ ko des na yu ñu war a mottali pour nit ñi jot seeni i kër donc ñu ngi wax nit ñi ñu gaaw parce que nit ñi soxla nañ ko mais logement social moo ciy génne nit cest à que mën a am kër ci 20 millions pour yor sa njaboot te mu jekku la nga jekku ko mu yomb la loolu mooy politique bi moo tax ñu wax 100000 logements ci 5 ans yi donc fu ñu jëm la parce que da fi fekk benn stock benn déficit boo xam ni il faut que ñu mettre ko à niveau boo ko buggee méngale nag ak 500000 francs yi ñuy jox jabaru ambassadeurs yi. du ñu bokk dayoo parce que jabaru ambassadeur yi matuñu cent te yàlla dafa dogal ci réglementation bi yow tey jii boo doon liggéey fii sa borom kër nekk ambassadeur nga war ko topp boo demee ci réew moom mënoo faa liggéey parce que statut bi la mënoo faa liggéey waaw mooy ko boo nekkee Nations Unies rek dafa am loo xam ne dañ koy jot mais ñun. avec les maigres moyens que nous avons. lu tax ñu amuñu lu tax mënuñu bokk mënuñu nangu ci cinquante sénégalaises yu bokk ci ñun wuy ji seen jëkkër am fa responsabilité parce que boo nekkee jabaru ambassadeur dafa am yu la war ci toppatoo. organiser organiser recevoir jàppale sa borom kër ci liggéey bi nga nekk sénégalaise mënuñu ñëw nangu. jabaru ambassadrice ambassadeur pardon nekk ci bitim réew ñu jox ko 500000 ba pare bëgg nangu avec le FAISE le fonds d'appui aux initiatives de sénégal de l'extérieur génne alal jox ko Sénégalais yi nekk. léegi kon léegi lu tax ci couche sociale bi nga xamante ne am na ñoo xam ne ñu ngi souffrir seen jëkkër yi gaañu nañu c'est des veuves ñu ngi fii di souffrir lu tax tamit amul benn fonds boo xamante ne mën na leen dimbali. ba pare nga tontu ma si li ma la mooy cellule communication. communal ci ñëw waaw kooku sunu mbiru bopp la. ah ba ba doomu bu ñu buñ ci yeggee. ah dinañ leen jox tontu bi parce que président bi ñu dajeek moom ci rencontre bi ñu am euh, semaine bële avant ñuy tukki àjjuma bële. Euh, jox nañu délai ak tegtal pour ñu def benn séminaire sur la communication partagée teg structure yi seet na ñuy liggéey mm-hmm. foog naa ni bu ñu génnee ci séminaire boobu dinañu ñëwaat janook yéen neen léegi nii la ñuy doxee. c'est à euh, wala non séminaire bi presse bi xam nga liggéeyu séminaire. suñu buggee nit ñi xam bu ne neexee ñu woo leen ngeen fekkee ubbi bi. mais suñuy waxtaan doo leen ko fekkee. waaw communication moom le volet stratégique ah, vous allez gérer ça. on va gérer ça donc li ñu mën def. dem si opérationnel. Euh, jàppaguma parce que d'accord guñ ci terme yi. Mm-hmm. est-ce que suñuy ubbi dinañ leen woo. waaw wala suñu paree dinañ leen woo. bu ñu paree mën nañu def benn format rencontre avec la presse. Mm-hmm. loolu lép ci intelligence bi la est-ce que duñu seet beneen forme. boo xam ne dina wuteeg conférence de presse. Euh, ni mu ko waxee woon keroog ci li ma war a def bu ñu paree ci loolu lépp am na jeexital boo xam ne dina ci génn mooy dem seeti rédaction yi expliquer ñu nekk ci politique ak yooyu ni ñu doxee pour ñu xam leen donc yooyu yëpp dinañ ci ñëw foog naa ni ab bi sorewul. Euh, beneen bi mooy euh, li ñuy def ci veuve yi foog naa ni am na ñaar yoo xam ne dafa am solo ci dëkk bi benn bi néew na bare na. nit ñi soxla nañ ko boo joxee plus de trois cent mille femmes bourse de sécurité familiale yëkkati leen parce que am nañu bourse de sécurité familiale nga jox leen couverture maladie nga yëkkati parce que am nañu ay njaboot boo xam ni am nañu juróomi at la ñu am xale yi am juróomi at nga jox leen couverture falan def un effet sur sept ans sur les prix fii nga dëkk ci réew mi forox caay ngay lekk keneen na ko lekk mën naa ci ñam yokkuwul. Ah, morso ba la ma doon jaar loolu lay jar ba tey yokkuwul. Ah, man xaw ma ndax ñun di ngeen lekk am déedéet man ciy laal. ma ah, kon nag monsieur le ministre nag. c' est cool. non non mais mais loolu la ñu màggee loolu mooy suñu mais am nga moyen yoo xam ne yow su la neexee duñ ko lekk mais man. aw ma moyen damay lekk chaque jour loolu laay lekk mbir mi du moyen man sumay moyen li ci ëpp. gannaaw sumay farata. Hmm. yor suma njaboot. Hmm. dimbali samay mbok li ci ëpp. mooy dimbali Sénégalais yi ma bokkal te ànd ak ñoom ci politique donc du rek da nga am moyen dangay ngay def lu neex xam nga yaa ngi wax da ngeen bakkane mais yow mii nii nga solo naan li sunu ay oto dañu bakkane yow nii nga solo waaw est ce que bakkane wul par rapport ak keneen nu mu la gisee non mais man ah? man nekkuma ci gouvernement non du affaire gouvernement affaire Sénégal la non du question privilège gouvernement du privilège gouvernement sacerdoce la li ñuy jànkonteel yow yaa koy wax mi am na ñoo xam ne ne xamuñu loolu. non man noonu laa koy dundee parce que pour man pouvoir. Mhm. Euh, te président Macky Sall pouvoir ni mu ko gisee du nguuru de moom liggéey la engagement la ko defee sacerdoce la ko jàppe li muy liggéey yëpp du profiter du pouvoir li muy liggéey yëpp se rendre possible ce qui est souhaité et rendre possible ce qu'il y de meilleur pour le Sénégal. est-ce que est-ce qu'à ce niveau euh, vous n'avez pas eu mal bi ngeen demee États-Unis Euh, les Sénégalais de diaspora génn yooxoo c'est vrai que le président Diouf l'a vécu en France euh, le président Wade l'a vécu aux États-Unis avec euh, mon cher camarade de promotion Souleymane Jules Diop et compagnie euh, quand je l'ai entendu dire Zisman euh, Iselaye je dis mais Souleymane nous sort ça d'où euh, bi yoon ma gis ñu def que le président Macky Sall je, surtout la première dame je me suis dit c'était un moment boo xam ni délégation bi ni mu ko waroon vivre waroon na metti trop non pas du tout moi j'étais là-dedans ci délégation bi la bokkoon. man gëm naa ne Marème Faye loolu yëngalu ko. mais bien sûr non c'est-à-dire il faut que nit ñi xam. mais au moins Seydou c'est un signal. non du genre il y a qui sont très mécontents par rapport à ce que vous faites. mais ils sont dans leur rôle aussi. damay expliquer parce que euh, man fa laa nekkoon man sax yooxu nañ ma. Hmm. dégg naa janook nit ñaan Seydou Gueye sàcc la Seydou Gueye sàcc la ñi janoon mais il faut ngeen xam ne la demee. image yi ñu génne ci manifestation bi image su ay manifestation beneen réew la ñoo xam ni seen ñaxtu troisième mandat la ñu sol ay t-shirt yu rouge sénégalais yi doon manifester déjà ci information yi ñu joxe manifester wu ñu devant le siège des Nations Unies mission diplomatique wu Sénégal ne 44e rue fa la ñu taxaw tali ñii nga xam ni ñoo ànd ak président di ko jàppale nekk côté bii ci trottoir bi ñeneen ñi nekk trottoir bale ñu def ay chevaux de frise ay bari ay barrières nit ñi dugg ci ñu janoo alkaati yi nekk suñu diggante ci wàll wi matuñu 35 ci wàll bi nga xam ne ànd nañu président Macky matuñu 60 ñaari camp yëpp. ku ci yor drapeau Sénégal amul woon t-shirt rouge massif donc manifestation boo ko gisee de part et d'autre noonu la demee ci la première dame wàcc taxaw di xool. sax à la non non c'est normal parce que ñun dañu am culture boo xam ni jàpp naa ni war nañ ko xoolaat saboter sa njiitu réew à l'étranger wala dem ci ay ambassade di kalaame sa réew. jàpp naa ni bokkul ci fulaak fayda. président Macky Sall. non xaaral ma ñëw ma terminer ci point bi. ci mon point manifestation quand on pense que le président il est tout puissant à l'intérieur du pays. et que bu demee à l'étranger il est obligé de respecter les lois de ce pays-là est-ce que le Sénégalais bu ragal ñu tëj ko comme Adama Gaye fii pour liberté d'expression et d'opinion du préférer defe ko fële parce que Mais... les Sénégalais ont beaucoup appris de cette façon de faire de Souleymane Jules Diop et compagnie non, à l'époque non c'est-à-dire euh, bu fekkente ni yooxu président la diggante 15 heures bi ñu tàmbalee ba 20 heures président nekkul boor boobu donc ki nga yooxu gisoo ko c'est pas important li nga bëggoon mooy ñu gis la mu dugg ci médias yi dugg ci réseau yi ça c'est incontestable mais dama jàpp ni euh, opposition bu mënul mobiliser fii mënul mobiliser ci biti parce que aussi dëkk yooyu euh, boo waree liggéey da ngay liggéey amul taxawaalu amul kenn koo xam ne am na liggéeyam di ko bàyyi di dem di manifester ji te du ko du ko sentir donc les conditions de la mobilisation à l'étranger sont compliquées donc il faut que ñu objectif ci mbir mi maintenant bu fekkente ni d'accord ma ci liñ boobu euh, parce que mënoo manifester fii boo manifester ñu tëj la kenn tëju fi kenn ko xam ni da nga exprimer ce droit ni mu la waree. Ah, fii ci seen non fii ci seen télévision yi. fii la ñuy ñëw di joxe opinion ak expression pour moi l'insulte n'est pas une opinion l'insulte n'est pas un droit dafa bokkul ci urbanité dañ ko warul a seq li ñuy def dafa am fu nu war a yem waruñu saagante waruñu xastante dañuy wax li nga xam ne moo nekk suñu xel ak li nu gëm jàpp naa ni nag une hirondelle na fait pas le printemps souvent ci dëkk bi nag xamuñu ki tooñ ki fayu rek la xam malheureusement. yaa ngi liggéey tu travailles vous travaillez sur les opinions ak l'expression ñu kenn tëju la parce que am nga lu la guidé c'est le code déontologique de votre profession c'est sa gis-gisu àddina ak sa compréhension ou sa rôle. l'éducation avant tout. mais bien sûr ce rôle c'est pas d'être la vedette fii ci télévision bi di jaay jàmbaar non man ngay jéem a pousse pour ma wax li nga xam ni moo nekk ci sama biir ma génne ko. loolu mooy sa hmm. mais boo bëggoon ñëw xëccoog man di werante naan ma waxoo dëgg Macky Sall li mu def du nii Macky Sall moo def lii kërti kërti mais dootul nekk journaliste kuy gàddu opinion ñuy werante ci opinion. alors Seydou Seydou euh, il se dit hein, que le président n'est pas très content de son équipe actuelle euh, c'est comme s'il avait fait un mauvais casting. et qu'on s'achemine vers un remaniement. Peut-être que vous avez quelques anciens du PDS qui devraient vous rejoindre euh, avec ces retrouvailles, configuration bi dina changer et que peut-être euh, le fait ku mel ne Amadou Ba ñu génne que finance yóbbu ko affaires étrangères on voit que les choses ne bougent pas euh, euh dans dans dans l'opinion daal en, en général ni ñi dañu jàpp ni président Macky Sall mi ngi xoolaat. Euh, cartographie gouvernementale bi seet kan la war a pousse fële indi ñeneen ñoo xam ne que dinañu mën a porter son projet pour mu réaliser parce que c'est c'est quand même un homme de performance il a besoin de résultat te ñu bari dañ jàpp ne ñii mu àndal actuellement nii am na ñu mu indi ñoo xam ni véritablement ils font pas le poids c'est le cas ou bien c'est juste une perception que l'opinion a. non je dis que c'est de la météo di seet ndax xiin na ndax dina taw mu xiin ndox mi wàccul ñu ne pourtant yaakaaroon nañ na taw. wala ñu yeew rek comme souvent remaniement ni muy amee mu taw te xiinul ndox mi wàcc te xiinul hmm. mais c'est un levier permanent pour un chef d'État parce que booy monitorer sa équipe di nga xool mais lan nga war a def de plus pour synergie bi yokku ou pour efficacité sectorielle bi yokku man nag jàpp ma ni euh, mauvais casting c'est un terme générique on en parle souvent euh, jàpp ma ni war na mën a dal koo xam ni yor na gouvernement pendant sept ans nekk premier ministre pendant trois ans nekk ci ay ministères ay diir donc am na nu muy gisee loo xam ni euh, man xaw ko gisuma ko yegguma fa yawit xamoo ko gisoo fa yeggu fa. kon Macky daal jum. ah si dina jum comme ñëpp. dina jum comme ñëpp mën na am. mais le profil de, de façon générale comme on en parle nii naan gars yi baaxuñu non ça jàppuma loolu jàppuma loolu te jàpp am naa tuuti présence du gouvernement parce que pendant sept ans nekk naa ci position xam naa mbiri ni ñuy doxee tuuti parce que yenn saa tamit damay euh, xalaat ne yéen da ngeen bëgg a communiquer mais président daf leen naan taxaw leen surtout bu ñu génnee mu am ay fuitu comme ni ko benn waxee sànq remaniement da ngay gis koo ci woo téléphone mu ne la chi siste bàyyil rek parce que temps yi dañu war a remanier. non amul temps yi dañu war a remanier parce que bu ñuy remanier ma samba du xam ma demba du xam. non mais attends. ah attendez <laughs> euh, man. Euh, nekkuñu ci nekk naa ci premier gouvernement. joxe première fois la liste dëgg la ñëw fekkee remaniement yi jiitu six mois après fekkee yeneen. dëgg la ma waaw doo ko xam du ma ko xam. Ah. xam nga man mi nekk secrétaire général du gouvernement. waaw di remaniement di jëkkam. waaw dama toog di añ. lekk benn kaldu ñu woo ma ma ñëw xaw ma sax mu ma am lii moo am ma dem defi sama liggéey souvent météo bi ak spéculation bi moo bari mais remaniement mën na war a am chaque jour. Mm-hmm. comme ça bi ñuy tëggaat gouvernement bi génne euh, toog rek affaire bi génn nga gis ne nekku si. bien sûr mais parce que la dernière fois ce qui s'est passé. Mm-hmm. ce que les gens oublient. Mm-hmm. génnewuñu kenn. ña nekkoon ci équipe bi mandat bi moo jeex te ni Sénégal bindoo premier ministre bu rendre démission am ñëpp wàcc nañu donc mandat bu ah, jeex la woon. amul benn honte dañu ànd pendant sept ans. jort ni bii yoon wala président woo leen la bon Seydou bi yoon moom da bëgg nga dem toog noppalu ko tuuti yooyu du si am yow daal liste bi day génn nga xam ndax yaa ngi ci wala bokkoo si. non di nga am man man am na avantage avant gouvernement bi génn président wax na ma. ma gërëm ko remercier ko parce que aussi. ah bon du ma craché ci sept années. Mm-hmm. yuñ la jox confiance. Mm-hmm. dénk la bokk. mais tamit benn bokkul boo bokkul. warul ñaawal juróom-ñaari at mais la bett aussi quand tu fais un bon boulot. man maay wax ak yow. waaw moi j'étais surpris. man damay gis yow li ngay demee. di di xeex di wax di kii euh, euh, ci teggin aussi man loolu laa lay gisee euh, ngay wax jikki ñu jékki-jékki rek moom ñoo xamante ne presque dañuy nelaw du ñu nekk ci seen bureau yi nga gis kenn koo xamante ni il fait très bien son boulot nga jël ko changé ko teg ko beneen nit man bu ma doon man j'espère que laaj nga ko président mbaa amul leen loo xamante ne def naa ko. parce que tamit loolu mën nga crise cardiaque. non non non non non non. boobu fekk noo ko dundee daal. non ni ma ko dundee. waaw mais de façon simple. dama jàpp ni. Mhm. mandat bu jeex la ñun ñëpp ñu jeexal. d'accord mais léegi bu ñu la équipe bu bees. léegi bu ñu la woowaatee. waaw ne la ñëwaatal doo nga pooj de fenn. non non ah. non non. parce que parce que sant yàlla rek sant yàlla ne mën nga si def benn benn kii xam nga xam nga lan mooy sant yàlla. waaw parce que c'est pas une revanche personnelle. non mais c'est une satisfaction personnelle. man en politique. parce que yow bi ngay dem. je ne suis jamais en politique. Ouais. pour des questions d'orgueil personnel. mm non satisfaction personnelle laa wax. non xam nga lan mooy suma satisfaction. personnelle waaw. mooy ñaan yàlla ba lii ñu bébét. Mm-hmm. pour def ko ci Sénégal. Mm-hmm. yàlla may ñu ñu remplir sunu rôle. Mm-hmm. ba ñi nga xam ne ñoo ñuy remplacer. bu ñu ñëwee teg seen tànk fu gën a kawe ñun ba ñuy egsi. d'accord pour moi la satisfaction. Euh, foofu la ne maintenant. Euh, man du ma wax président fii laa bu nga yóbbu ma je le jamais. parce que moom moom moom mission bi moom la ko yàlla jox. ci sax ni da moom yow da ngay toog. Mhm. xëy na bokk nga ci barke bi. parce que mhm. yàlla dogal na ngeen ànd bokk parti ba mu ràññee la. Mhm. ba mën la woo. donc ci barke gi nga bokk. nga war ko féete foo xam ni moom mënu faa te mu am ci yaakaar ci yow. nga jàpp ni rien que le fait que. ñu oola parce que bokk ak ay cadre yu biir APR ay ñoo xam ne depuis 2008 ñu ngi ànd di liggéey. Ah, gënuma leen dàquma leen liggéey. Ah, waaye nag mais kenn oowu leen. fighting bi nag. mais pourtant ñu ngi xeex mais am na ñoo xam ne li ñuy daj ci terrain bi. man dajuma kaar bi. macha allah te pourtant kenn kiiwu leen. Euh, euh, une question ma bëggoon ñu aborder ko parce que nous reste euh, presque moins de cinq minutes. ah man j'ai trois questions. Seydou la communication. Mm-hmm. ñu gis bi ngeen jógee États-Unis coow li bare. xam nga parfois journaliste du ñu am des preuves mais dañuy dem sur une base. l'histoire euh, du Financial Times ñu jàpp ni le président Macky Sall yéen da ngeen fay presque cent millions de francs pour ñu defal que un public reportage euh, redoré waat image bi wane ni que ni euh, c'est un très bon président et cetera euh, quid de cette affaire c'est vrai c'est pas vrai c'est un bon président c'est un bon président ñaar a ko wax ñu bare ci sénégalais yi wax nañ ko ñu bare dans la communauté internationale wax nañu que président Macky Sall est un bon président sénégalais yi naka lañ ko waxee mooy bi mu defee sept ans ñu nattalaat ko cinq ans donc loolu mooy mandarga bi à l'international d'ailleurs les moments les plus importants yi ñu def aux Nations Unies du loolu communication bi président def biir assemblée générale intervention ñëpp ko saluer suivre ngeen thématique yi mu ci développé vision la yoon la pour Afrique gàddu benn xeex boo xam ne foog ñu bàyyi ci xel c'est sur la fiscalité sur les le pétrole ak yooyu c'est un vrai combat et depuis longtemps mu nekk G7 mu nekk G20 mu nekk Nations Unies mi ngi gàddu xeex boobu dañ ko ci war a jàppale te président africain yu bare ñu ngi ciy jàpp ça c'est au profit de l'Afrique beneen jataay boo xam ne am nañ ko fu mu important pour Sénégal mooy rencontre avec la chambre de commerce américaine ñu am ay yoon yu ñu ubbi pour am une relation d'affaires Amérique Sénégal mu daje ak Mercy Ship bato la boo xam ne mi ngi faj fii mais li bato bi liñ ciy def nit ñi dañu gis rek bato bu jógee ci bitt mais gisuñu Sénégal def Sénégal def na ci à peu près l'équivalent de 3 milliards pour ñu faj ay sénégalais ci ay nag yu ñuy joxe ci jën yu ñuy joxe ci salaire yu ñuy fay 250 sénégalais yu liggéey ci bato bi pour faj ay sénégalais sur la chirurgie loo xam ni euh, amul woon. ñooñu bëgg ci mbir mi ba ni seen bateau bu bees bi nga xam ni double capacité wu lii fi nekk la yor moom lañ doon mobiliser lay ressources bu nu koy tudd Sénégal lañ koy indiwaat président Macky Sall dolli ci ni bu ñëwee Sénégal war nañu xool naka la ñuy fexee ba réew yi nga xam ne ñu ngi ci sunu sous-région te amuñu géej mën a egsi pour faju léegi nga jël ak communication financière temps mu nekk lu tuuti yow sa sa la yow sa métier la bu la neexee nga dem defi publicité mais jàpp nañ ni xaw ma xaalis bi xaw ma lu ñu fay xaw ma ndax dañu fay. ay cotisé woloon. xaw ma ndax dañu fay li nga xam ni moo am mooy président Macky bu demee France def interview ci RFI bii nii dafa am interview yu bare yoo xam ne dañ ko dañ ko gàttal CNN buggoon nañ ko jël Bloomberg bëggoon nañ ko jël mais jot bi mayewu ko mu am benn. document peut-être bu ne Sénégal warul fay état wu Sénégal warul def publicité mais bu nu ko gisee France def ko beneen dëkk def ko ñu jàpp ni le Sénégal est un état modeste warul def loolu loolu bokkul ci liy jëmmal Sénégal et du ñu toog fii di werante sur le bilan commercial de 2S yéen da ngeen di jël pub su ma fi ñëwee jël pub da ngeen may jël. su ma ñëwee bëgg ñu def direct. si c'est éthique. non su ma ñëwee di def direct sur ma manifestation da ngeen may. fayee ah, ko fay bien sûr. eh voilà. sauf que sauf que sauf quand quand le service public on laisse passer comme hier. non euh, non ça c'est de l'info mais am na loo xam ne su ma koy def moi en tant qu'acteur public. Ah. dans le cadre de mes activités politiques. Mhm. mais il faut ma fay leen man xam naa li may wax. mais soo leen ko defee kon ñun dañuy tëj. c'est pourquoi ñu bari jàpp ni que ni. non l'histoire du Financial Times la question la question suñu bëggee avancé. waaw mais loolu est-ce que am wala amul mhm. suñu mooy naka la ñuy def ba presse Sénégal gën a moyen gën a am dayoo. waaw ba pare nan la ñuy def aussi ba président di gën gëm aussi ñi nga xam ne ñu ñi fi. parce que bu ñu xoolee ci non bu ñu xoolee ci élection yi bi muy mhm. ñëw. ñoom ku ci nekk muy sama ñoom papa ñoom Abdou Diouf ak yooyu dem jëli ay ay nit yu. non loolu weesu yoo xam non mais fii am na ay école yoo xamante ne dañ ko ubbi ñoo xamante ne mën nañu waat encore parfaire image am sànq bi may ñëw dama am kenn koo xamante ne parce que xam nga man ci sénégalais lambda yi laa bokk ci taxi yi laay dugg ah, ma ne ko no waaw man déedéet yow sa oto bu bakkee ne ngi lay xaar benn mais day naa la wax dama lay jox benn anecdote il ne faut pas désacraliser l'état non non je ne désacralise pas l'état bu ma jaxasee àdduna dama ne uh-huh. man sànq bi ma yooyu yaa ngi tax ba ma fàtte li ma bëggoon posé euh, euh, euh, nga ni bi ngay ñëw Sénégal bi la fa la wax la non man bi may bi may bi may ñëw ci yoon bi dama jël dama jël kii dama jël dama jël taxi hmm. di ko posé question Euh, ci Macky Sall mu ne que euh, ma ne ko lan moo la naqari lan moo la neex si Macky Sall déjà mu ne ma il n'est pas proche du peuple ma ne ko ah mais lan moo du proche du peuple ak yooyu président day li buy tukki day liggéey ak yooyu mu ne mais mës nga gis président rek mu def comme jabaram wàcc waxtaan ak sénégalais yi sol jiinam chemise am ak yooyu soo gisee mu am différence entre moom ak kii cest à moom day ñàngal ñu nekk ñoo xamante ne dañ koy jàngal kii ak yooyu dañ ko dañ koy dañu koy dégg rek te di wax ni ma euh, sentiruma non dégg nañ loolu nit bu free dégg nañ loolu waaw euh, dinañ ci góorgóorlu mais bu ñu fàtte ni waaw euh, dafa am la fonction je ak l'homme mhm. am na yoo xam ne buñ ci sàgganee waaw ba banaliser waaw président dinañu dugal dëkk bi ci yoon boo xam ne xamuñu ko côté boobu sans étant sans être xam nga am na ay réew yoo xam ni dañu taxawoon ni président ordinaire lay nekk non dañ la tànn am ay mandarga yu ñu la jox am lu ñuy xaar nga mate ko. trop protocolaire. gis nga tey ni boo ko jëloon non tey ko jëloon. Hmm. benn il faut nga may ma tey boo ko jëloon euh, dernière question yi tey boo nga jël ko par exemple nii ni muy def nii ak euh, le président euh, kii ak yooyu. soo ko jëloon tey yóbbu ko simplement ni mu wàcc ci terrain bi yéen ñaa ngeen ànd mu dem xool mën mënd bi def yooyu on a besoin d'un président comme ça il est non, jeune. yooyu président mi ngi koy def. Ah, dinañ ci gën a améliorer comme léegi dégg nañu moom kenn mu ànd ak yow rek dem on n'a pas besoin de motard des trucs comme ça. dégg nañ ni dégg nañu dégg nañu bu baax euh, cette demande. waaw président boo xam ni bëgg nañ ko gis ci biir ay nit. Mm-hmm. du loolu ngeen di wax. ah bien sûr dinañ ci dinañ ci gën a liggéey. waaw parce que dinañ ci gën a liggéey non loolu dinañ ci gën a liggéey dinañ ci gën a liggéey mais bu ñu bu ñu désacraliser. waaw cellule de crise politique sociale yéen a ngi koy xalaat. pays n'est pas en crise. ah bon euh, euh, euh, amul juste une question pour terminer monsieur le ministre on va vers la rentrée des classes. gis nañu le ministre Talla avait rencontré le G6. il y a le g de, de, de l'autre côté. Euh, hier, euh, le ministre Kanté, dans le cadre du suivi du protocole, est eh venu signer avec les, les centrales syndicales, surtout enseignantes, jot na def benn rencontre. alors euh, mais enseignants yi li si ëpp dañ naan que ni ñoom dañu bëgg en l'absence de Mohamed Boun Abdallah Dionne qu'il regrette rencontrer le président toog waxtaan ak ñoom parce que l'éducation c'est un pilier essentiel dans un pays surtout bu ñu bëggee réew moomu mën a développé wu qu'est-ce qui bloque euh, pour que rencontre boobu mën a am entre le président et les enseignants mais je pense qu'il y a rien qui bloque première chose première satisfaction ñu ngi jëm ci rentrée des classes mais je pense que les classes ne sont pas occupées par le passé rentrée des classes bu jot jàmbat bi mooy nañu génne famille yi nga xam ne dañu génne woon ci mbënd loolu même bu amee ndox mu bare mu wàcc déggatoo loolu donc c'est un point de satisfaction la deuxième le deuxième point mooy dans les cadres yi nga xam ne ñoo nekkoon en discussion avec le premier ministre de l'époque mais waxtaan boobu bi ñuy entériner décision yi syndicalistes yi ñoo toog ak président ñu validé fan nañu acheté woon ci montant wu indemnité de logement yi président débloqué ko ñu jóge fii am déggoo ba mun jot ci li ñu bëgg mais noonu la ñuy liggéey dinañu waxtaan ak ki nga xam ne moom la ñu désigné pour mu def li ñu doon ooye le monitoring stratégique maanaam dañ daan am ay waxtaan sectoriel syndicat bu nekk ak ministère bi nga xam ni moo la amee wala ministre bu nekk ci lu mu war a faj ci plateforme revendicative bi fekkente ni c'est du foncier bu fekkente ni c'est des prêts DMC ministère du budget finance ñëw si c'est des questions euh, administratives ak yooyu fonction publique fonction publique ñëw d'autres questions ministres yi ñëw donc daje ministres yooyu moo taxoon moom un monitoring stratégique de tous les trois mois ñu koy def au niveau du premier ministre léegi format bi changé na ñu dénk ko le ministre qui est en charge du suivi du plan Sénégal émergent parce que éducation dafa nekk donnée bu centrale mooy axe 2 du plan Sénégal émergent parce que quand on veut faire une société du savoir da ngay jox éducation cër pour jeexal ci wax bi te li ñu war a xam li jóge ci budget Sénégal ñu jagleel ko éducation c'est plus de vingt cinq pour cent du budget national. Euh, sur le savoir lan mooy se livre de chevet en ce moment ak lan mooy sa plat préféré. Mm. ak euh, nooy kiiwee sa vie de travail ak vie de famille yenn saa yi est-ce que dina difficile pour euh, heure yi ak yooyu nga nekk ak sa njaboot ak sa famille ci loolu laay jeexalee livre bi may liir nii actuellement bi ma jeexal euh, mi ngi tudd Passion c'est livre mémoire du président Sarkozy. Mm-hmm. bi ma entamé mooy livre François Hollande. Mm-hmm. sur les leçons du pouvoir. et maa ngi liir en ce moment beneen livre boo xam ne Luc Ferry. moo mm-hmm. ko bind ak Nicolas Bazoum sur un peu la société de demain mais li bi nga xam ni at bu nekk ma liir ko mooy la République de Platon at bu nekk dama koy lire c'est fort dama koy lire tous les étés euh, mm-hmm. saa yu école tëjee mm-hmm. vacances yi dama koy lire gudd na sa auteur non j'ai beaucoup de mais ça c'est c'est un peu la dimension philosophique et politique <coughs> parce que booy nekk nitu communication ak politique. foog naa ni il nga xam Aristote bu baax. sur la rhétorique. Mm-hmm. xam Platon. sur la République et les fondements de la démocratie mm-hmm. mais aussi. un peu de euh, Rousseau, un peu de Hobbes aussi. Thomas Hobbes tout ça mon message c'est beaucoup plus sur le Léviathan yenn yenn levier yi mais li nga xam ne mooy structuré. Mm-hmm. sa vision politique. je pense que Platon dafa am lu muy posé pour moi ni ko Anna Arendt waxee. modernité bi foofu la ci ñoom la. mais point de rupture bi gën a essentiel c' est Karl Marx sur la modernité. Euh, voilà Seydou dernière question. non daf ma laaj plat bi waaw bon man. plat yi ma bëgg plat bu amul taalaale rek bëgg naa ko. waaw bu amul dëwlin. bu amul taalaale dëwlin ay magi ak yooyu. ah je comprends rek euh, man la juste une question. <laughs> Euh, dama gis ni que ni vous faites l'objet d'attaque léegi léegi nee nga aux États-Unis taxaw nañu Seydou Guèye sàcc la yew nañu benn jour ñu ni Seydou dans un commande affaire de livre Seydou def na li def na li euh, parfois am na fi benn moment Seydou dafa changé sa dentition dem na fay combien de de de millions. Euh, tout tout toutes ces toutes attaques là. <laughs> Euh, nan ngay def ba kay. dentition ba kay amortir. est ce parce que Seydou dans un passé dafa nekkoon guerrier nekk un bon rastaman am une philosophie boo xam ni. dafa naan àdduna lu ñëw naa ko jàpp ni lii la ma xool lan moo si dëgg lan moo si dul dëgg et puis j'avance. non pour man. lu dul jàmm. waaw jàmm moo ko gën. c'est beneen bi it. Mhm. lu amul njëriñ jarul ngay sonn. dañuy wax su bëñ mais dama amoon ay problème sama bëñ dafa jàq woon mais sama alalu bopp laa ko defee. gémmiñ dañ koy defar sax. ma ni ki ma koy wax. bu mhm. nekkoon ci li ma ne dina wut pexe. Mm-hmm. bu ko waajuram soxlaan mu ti xaalis jox ko mu defar ko. dëgg la. Mm-hmm. ma lew maa ko moom. te la science ne pas faite pour les cochons elle n'est pas faite pour les chiens elle n'est pas faite pour les moutons. pour ñun la. a un minimum de ku am feebar faju waaw. ku am feebar faju mm-hmm. donc y a aucun complexe aucun problème. dafa am njëriñ. te daf ma noppal parce que sa bëñ bu baaxul da ngay am problème de santé. problème de mastication doo lekk bu baax. mën na sax indi hypertension tout ça problème de voilà donc ouais, euh, maintenant ki ma jiiñ ne jël naa fi alal tooñ na ma mais jéggal naa ko. monsieur le ministre ñu ngi lay remercier. maa ngi leen di remercier. leen gërëm leen ça ce fut un plaisir de vous de vous recevoir. c'est partagé. Euh, maa ngi koy wax euh, je l'aime bien. Ouais. Euh, à chaque fois que je le vois je pense à Pape Alé Niang parce que. Ah. non Pape suma suma suma suma rakk la Pape heure bu ñu waxee mu ni Seydou Gueye. Ah te heure bu ko woowee mu ñëw. Pape suma rakk la euh. et puis c'est un homme qui a sa position j'ai la mienne. mais dañuy déggoo dañuy gisee suma rakk la suma xarit la. non confidence euh, vraiment vraiment vraiment mhm. confidence violée euh, dama mës di toog di xalaat ma ni bu diggante Seydou Gueye ak Pape Alé Niang yàqoo ndax politique euh, ça veut que amitié amul or Pape il vous porte dans son cœur c'est quelqu'un de bien ça j'ai j'ai beaucoup du yàqu waxtaan naa ak cinq personnes yoo xamante ne dañu wax si yow loo xam ne dafa daw sama yaram moo tax ma gën la fonk te première fois bi ñuy gisante da nga ne ko yow tu n'aimes pas ay conflit yow loo xamante ne conflit la loo ko jaxu ko. waaw loolu maa ngi koy fàttaliku mais vraiment merci monsieur le ministre. c'est à dire uh-huh. mooy liñ ci war a wax rek. te jàpp naa ni wax nañ ci liñ ci mën. li ci des moom yàlla na ko sénégalais yi nangu. yàlla may ñu ñu teewe ko déwén. ak ay at yu bare. yàlla de leen dooleel seen liggéey. amiin incha allah salut au grand El Hadj Ndiaye ak euh, soxnaam ak suma jarbaat yi. dëgg bu baax allah. alors euh, juste une petite pause et le temps d'accueillir notre deuxième invité euh, pratiquement sur la même lancée on parlera de Massalikul Jinaan et cetera et cetera. Mm-hmm. Serigne Mbaye euh, Serigne Thiam euh, Serigne Khadim Rassoul Thiam. qui est mon grand avec qui j'ai fait la France. ah oui. je le disais tout à l'heure mm-hmm. sunu mag la. ñu nekkandoo France boobu maa ngi Sorbonne moom mi ngi Paris 8. Ah, euh, mu nekk ku am xam-xam nag. Hmm. ci wàllu science ak mathématique. le président Macky Sall dit que métacompétence. voilà c'est compétence transversale. waaw ouais. moi je connais un son parcours. Mmh. et wax naa ko léegi sa kanam bi ñuy yéeg. Hmm. je me souviens quand il a terminé son mémoire. c'était sur un sujet de mathématiques j'ai oublié le thème euh, man la ko jox ma xoolal ko ko. di ko seetal les fautes de frappe syntaxe defar ko et il a soutenu avec une très très bonne mention jàngale na non sëriñ nit ku baax la non sëriñ nit ku baax la sunu sunu mag la non ñoo bokk yàlla na yàlla defal jàmm ñun ñëpp defal ko Sénégal def ko ci kër yi def ko ci xol yi yàlla na ko yàlla def merci à vous monsieur le ministre la pause et on se retrouve dans quelques petites minutes pour la suite Thank you so much.